ziar ziaraatan mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo leen wax ne tey dañ déplacé wu ñëw ba fii ci Tivaouane Peulh plus précisément ñoo ngi Namora euh, ñëw seet si un espoir comme j'ai l'habitude de le dire une valeur sûre en l'occurrence ki ma ñëw seet si tey mi ngi yoo ci turu Thiely Thiely bu Joal Fadiouth moom lañ ñëw seet si tey fekk ko fii ci Tivaouane Peulh fekk ko fii ci Namora di leen wax si sama gars yi euh, xamee leen ko ràññee ko parce que dafa ñëw pour bokk dafa ñëw fas yéene dalante ak gars kon làmb ji nañu bàyyi xel bu baax kii di Thiely bu Joal Fadiouth parce que damay faral di wax naan mbër bu ndaw bi mooy màgg doon mbër bu mag kon xàmmee leen ko ràññee leen ko bàyyi leen ko xel bu baax a baax a baax Thiely bu Joal mooy sama invité tey mbër maa lay ziar. waaye maa lay fay. naka yi tey. lépp jàmm. ci kawam. maa ci kawam bu baax eh, man Thiely bu plateau laa xamoon mais bii Thiely bu Joal Fadiouth laa jàkkaarloo. moom la Thiely bu Joal Fadiouth. fekk la fii ci Tivaouane Peulh plus précisément Namora. cité uh-huh, Namora. Euh, avant tout lan ngay nuyoo dèjà ñi lay seetaan. waaw maa ngi nuyu ñëpp. waaw nuyu sama gars yi di nuyu site bi ma nekk maa ngi nuyu ñëpp daal surtout ñi ma nekkal sama gars yi ma nekkal ñëpp maa ngi leen di jaar waaw ñoom Baboy am ñoom euh, Assane Tall Mambala ah, ak sama. Ndiabolo euh, ancien mbër bi Ama. <laughs> Ama maa ngi koy ziar bu wér a wér di ziar sama boy yi am nga ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar di ziar waa Joal yi comprendre nga. waaw nice. loolu ngay nuyoo. waaw maa ngi nuyu ñëpp daal. Eh, pur produit wu waaw séeréer. lébu rek séeréer daal waaw. ndax lébu ak séeréer moom benn la rek. d'accord yàgg ci gaal yi. waaw man fépp. xam nga man si. Euh, benn instant aussi euh, nga nekk un lutteur mhm. nekk benn mbër. Mhm. ne cëpp dakaar mhm. ñëw Tivaouane Peulh. yow yaa wax nag yow yaa wax du man maa yow yaa ne da nga ñëw fas ne dalante ak gars yi est loolu dëgg la ci. lu leer la. damaa ñëw fas yéene dalante gaay yi. da ngay dëggal loolu. si dama koy dëggal bu baax a baax damaa ñëw pour dalante gaay yi. sa histoire ak làmb fa la tàmbalee. sama histoire ak làmb. maanaam lan moo la ak waa juddu si làmb xam nga juddu te ji waa juddoo si màggee si xam nga ba nii xam nga nekk ak samay grand frère ñu yàgg di bëre ma leen di seetaani ba tey jii nii xam nga làmb dugg si man ndax deret la dafa nekk si man. Joal Fadiouth sa dem ci Yékini. aha sunu mag la. ci Papis ñoom ñëpp suñuy mag lañ dañuy. ci ay ay champion. aha ñoom ñëpp samay mag. Mamadi Ndiaye. Mhm, ñëpp samay mag lañ. ñoom Mamadi Ndiaye Ablaye Ndiaye ñoo ñëpp. Mbañi Ndiaye ñoom ñëpp. lu nekk si ñun tey jii nii ñoom ñoo ko def si ñun xam nga ñu juddoo si làmb dëkk Joal di dem fu ne nag si mbapat fu mbapat am ñu dem wëri ko. fu ne ci mbapat. fu ne di fa def nag résultat. di dem fu ne ci mbapat di fa def ay résultat billaay wallaay talaay. depuis 2012. doon lu cum booy dugg si si àll bi di toj. xam nga di jël depuis 2012. donc 2021 kon ça fait 9 ans. Oh, yàgg na depuis 2012. fu làmb am mbapat ñu dem jëli ko ñib si. yan yan dëkk yan ak yan ak yan ak yan dëkk yi. jof yoor ay ndangaan ba luuli. fépp man mën naa laa wax Sénégal daal. Euh, bàyyiwuma fenn fépp dugg naa fa. fu ne fu làmb am. mise yi am am na loo jël am na loo jël. ci tournoi yi waaw jël naa ay nag. ay nag jël naa ay nag kañ. waxoo jël naa nag de da nga ne jël naa ay nag. depuis 2012 laa commencé jël nag. ay nag ay nag. waaw ma ne la bari na ay nag. benn yoon nga dem tournoi bëree daan ñëpp jël nag. du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon ma ne la depuis 2012 ba tey xam nga ne yàgg na. waaw wax dëgg koy ñàkkante gaay ci àll di ko ñàkkante gaay dama dem nag ba mujj gi ainsi suñ toll nii man dama mën naa laa wax damaa ne lii bu nekkee élève laa si ainsi suñ toll nii prof laa si si mbapat comprendre te si prof nga te nekkatoo élève te nekkatoo étudiant te ndaw laa te ndaw laa il faut ma def retour si arène bi ndax gaay yi mën a ràññee bu baax kuy ceeli loolooy wax ji euh, tournoi yi jël nga nag ak lan ak lan ak lan nga mës a jël jël naa nag xaalis ay tonne ciment bari na. jël nga tonne ciment. ay yoon. ay yoon. campement ndang booy nag wàññil nag wàññil jël ay tonne ciment ay tonne. campement bi fa mujjee teg douze tonnes man maa ko jël man Thielé Baye. douze tonnes ciment. man maa ko ne foxet jël ko. Oh. loolu yéeme na. looloo am. kon kon si la nii maa ngi naan eh, ndeke. ndeke champion nga toogal champion nga toogal tey jii nii nii nii. ñii di ma déglu ak ñi may seetaan ñëpp dinañ xam ne kii di wax nii lu nekk la li muy wax. ci àll bi. léegi gisee danañ xam ne waa ji jaaroon na fi. bu baax ba si tey jii nii nii nii nii ñi ngay dégg ñuy bëree mbapat Dakar ñu nga leen di dégg ñuy siw ñëpp ñoom ñëpp xam nañ xale bii di wax mooy kan. am na ci ñoo xam ne dalante bu baax ñu bari. am na ci ñoo daal. ma ne la waaw. am na jox ma ci quelque. ma ne. ñi fi nekk lëmbel lamb simple bi. ma ne di di toj gars yi teg leen choc bàyyi leen xel ñan ñan nga ci mos a. ma bari na ay ñoom Alpha ñoom Cheikh Tidiane ñoo ñoo ñëpp. Alpha man Alpha man Cheikh Tidiane ñaa booy da ngaa mën a daan Cheikh Tidiane ñaa wàññil wàññil ceeli da ngaa mën a daan Cheikh Tidiane ñaa. xarit yow xamoo ki ngay waxal. xanaa mais xam naa Cheikh Tidiane ñaa. ma ne la ñi ko gën a tàng. ñi gën a tàng Cheikh Tidiane gën a tàng. rëg rëg daje nañ comprendre nga. xam nga ma ne la wallaahi azim film la billaahi wallaahi tallaahi ñu bëre bëre bu metti ma bëre bëre xale suuf su ma ko tubbee su ma jëree sax ñëpp yuuxu ma bëre bëre xale cuune foofu xam nga yàlla def ma mu jee ñàkk si kawam aha waaye biir na ma nii nii suñ dajawaatee ma defal ko ndax ndax peretu xale laa loon bëree moom mais boobu lan la engagement boobu lan la la lu ma judduwaale la comprendre damaa judd gis samay mag di def résultat voilà ma ñëw nekk seeni i tànk comprendre nga di def comme ni ñuy def man bi may yéeg poids lourd samay grand yu bëri dañoo taxawoon ne ma moto mburu poids lourd yamal si tànk ma forcé bi ma yéegee tamit xam nga gis nañ lu leer ne kii li tax mu yéeg xamoon na ko ndax boo maa ngi yéeg si man loo xamante ne ñoom yëguñu ko. te bi nga yéegee foofu def nga. bu baax. Cheikh Tidiane fan ngeen bëri. lu leer nañ. boo ne Jof yor sama xel dem ci Ibou Ndiaye Jof yor. ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne tey jii nii. mais Cheikh Tidiane moom ku ko daan daa ma ne la di nga am na benn mbër bu ñu doon wax euh, kii comment dirais waa palmarin bi hmm, tam loon bëree tam loon euh, yomb di dem ay CEDEAO Cheikh Cheikh Diane Cheikh Diane xam nga ko tam loon euh, taf kii bi fii bakkan bi amoon Cheikh Diane bi ma koy bi ma koy tëbal boobu maa ngi doon luccum te boobu moo ngi toj sama grand yi bi ñu dajee sama grand yëpp wër ma ne ma champion la nii ak nii waaye boobu man li nekk si man xam naa ko. arbitre daa teggi loxo ma jaxase ko. ins boobu lañ gëm ne ne kii nii mbër lay doon waaye man li ma ñor insiñ toll nii moom mooy dóor bi. ñëw dóorante ak gars yi. mais nag booy. booy ah booy attention attention booy d' accord lamb simple d' accord toj ko toj lamb simple ku ko def ndaanaan nga mais lutte avec frappe bi. da ngay da ngay da ngay jàpp mbër di moolal naan ban kele laay def doo sib naka waar ku mooy jóge fële ne la kàng war na yàlla lu leer laa lay wax nii. ma ne li ma def ba tey jii ni tarbiwu mbapat comprendre nga noonu laay def ba tarbiwu tey jii dóor xam tey jii ni fu may teg sama tànk ak sama loxo comprendre nga. ban écurie nga nekk. ainsi maa ngi écurie Tivaouane Pël nekk ak gars yi xam nga ñu jàpp ma tey jii lépp lu manqué si man ñu koy xam nga. spiritual pël mooy mooy ñoom ñoom ñoom euh, vieux waaw ñoom grand vieux ñoom booy bi saaw ñoom ñoom guy gi bu tiwaan pël ñoom euh, euh, kii tubaabu joor aha ñoom ñoo ñëpp tey jii ni maa ngi ginnaaw xam nga tamit di déglu conseil di déglu tamit lépp luñ ma wax ma seen booy bi bëri na guy gi bëri na dem moo daan moo daan yaa ngi gis kon xam nga ne tey jii ni foofu ay champion nga fa noonu la demee yu gëm làmb mën a bëri mhm, noonu la demee nag mais benn instant mbër mi tey boo ñëwee tey bëgg a jox ci làmb ji d' accord wax dëgg yàlla li ma ba taxaw ñu naan ana mi man loolu leer na ma mhm. ceeli du taxaw fenn ñu naan ana mbër mi mhm. mbër mi mi ngi fi d' accord mais nga ñëw war dugg ci arène bi mhm. ne nga da nga n' ce pas. bu baax bu baax. bu baax sax billaahi bu baax adversaire yi ñan la ñi nga war a bëreel instant bi ñan la. ma ne ainsi ñu toll adversaire bari nañ fi. sari nañ yaa ngi gis saa suñ saa suñ paree pour bëreeg ceel yi ah du ma ne la pare sax man maanaan tey jii nii ñoom buñ bëggee bëre amateur kontaan ñëpp kontaan. amateur yi làmb ñëpp kontaan. nañ jël ceel yi ku jël ceel yi di nga gis bëre ku toog nag di euh, jaay euh, waaw ba ba jëloo ceel yi pour nga jotee ceel lu jafe lay doon. qui veut dire que ku la jëlul tey bu subaa dina la bëgg am mu tëw mu tëw ko bu baax a baax a baax waaw ma déggee da nga fas yéene jóge ci suuf daaji jëm sa ma ne la booy yëpp damay pour yoon la rek xam nga tey jii ne xale mënul juddu rek dox il faut moo raam comprendre doo ko dox damay raam nag jóge si raam rek daw man roi bi moom moo tax a jóg man couronne bi moo la tax rek la couronne ma ne la mais couronne bi duggoon na si Walf Fadjri delluwaat bi nag seen waajooju gorewul de couronne bi dëkk na Joal Fadiouth huit ans huit années ma ne la juróom-ñetti at nekk roi des arènes ma ne la dinaa ko fa dugal cent ans ma ne la wala déggoo ma su xasee ba dugg ah dootul génnaat yow yaa wax man maa la wax lii yow yaa ko fa nar a man maa ko fay dugal te dootul génnaat te bës bu couronne bi dugee Joal Fadiouth boo ko fa dugalee dootul génn mukk fan nga teg ma ne la gëm-gëm bi nekk si man ma ne la bés bu nee carax foofu dootul génnaat ndax première kooku dugaloon fa roi bi muy Yékini chaque jour suba ngoon daloon loon def si ñun di ñu wax di ñu expliquer comprendre nga kon kooku tànkam ku ko jël surtout dolleeku leneen. ay tànkam nga tegu. yàgg na tànku yaxee Jóob Yékini nga tegu. ma ne la mbaru Jowaalo boo gis ah Yékini mu ngi sa ginnaaw. mooy sa idole voilà sa référence ñun ay. Euh, Thiel yaa ngi wax ak benn certaine assurance. Mhm. maanaam boo wax ku lay déglu day xam ne kii dafa dafa gëm boppam. Mhm. mais aussi danga nga wóolu sa bopp. Mhm. lu waral loolu. No, dama di ndaw ba pare ñeme liggéey dañ wala ok liggéey dama di ndaw te ñeme liggéey 4 heures du matin daf may fekk dinya 4 heures du matin may liggéey lu metti dinya ngi tout près tout ah, sa gàlla ngi ah. nii dinya ngi fii tout près man la su ma jógee 4 heures du matin ah. tey jii da may may 7 7 rek tourner di liggéey lu metti 4 du matin 4 5 6 7 di liggéey lu metti comprendre nga nga kon dèjà loolu rek sama entraînement xam nga man gëm naa ne ku taxaw sama kanam ma effacé ko. li ngay entraîné li may entraîné. tax na nga jàpp ne ku taxaw sa kanam na nga koy effacé. ma effacé ko yàgg na. adversaire yi doo ma wax la ñi nga war bëri. ma ne la samay adversaire ay ay étudiant bi. góor gi étudiant ah waaw góor gi bi góor gi professeur la nekkatul góor gi étudiant léegi professeur ma ne la ak ñoom ma xaw ma ma mamaya bu tëngeej. ñooñu ñooñu ñëpp ku si ñëw yoon la rek. tey ji yoon la. Ah, maama yaa yoon la ma ne la. yow yoon la. ma la nit nit tëbul rek dox. yoon la rek non mais yoon booy ut yoon xoolal lu xaw a tane lu xaw a yomb tuuti. pourtant lu yombu laa wut ñooñu. mooy yow yoon la góor gi yombul de. góor gi yombul de. ma ne la ay ñoom caatu géej waay ñu ñun ñëpp ku si pere ngir bëreeg man mooy loolu. nice pere mais est-ce que est-ce que xam nga maama yaa est xam nga maama yaa ci mën a bëree xam nga maama yaa ci ñeme entraînement. Mamaya maa ko dàq bëri fuuf ah gën koo ñeme entraînement fuuf te balaa nga woon gën a xam loolu maa ngi moom suñu combat taxaw nga xool. fan nga teg ne yaa ko dàq bëri fuuf. ma la damaa seetaan ay combat yam. Ah, seetaan nga ay combat ma ne la ok xanaa Mbadou li mu nekk ci tolof tolof nekk ay jafe-jafe xaw tegale ay défaite nii comme saa moo tax nga jàpp ne kii cuune la. yow léegi yow li gën a yomb. ah soo xamee tey jii nii ñi nga xam tey ñoo gën a taxaw wax ma leen ma limal la tey jii nii képp ku taxaw ah ngir bëreeg Thierry pere na pere naa laa la dalante ak la tafaati nag booy ñaay ñëpp ah, foofu nga teg say bët ma ne la ñooñu ñooñu dama leen di ñëw rombu nga naan ma damay ñëw romb leen ñooñu damay ñëw rek cos rek jàll fi ma teg samay bët moom mooy couronne bi moom foofu laa teg sama bët na instant bi daal saison bi tijji na démb la woon le 10 mhm. octobre mhm. premier combat bi

lefe-lefe la. un intellectuel de un. koku koku la la wax du da. koku professeur d'éducation physique la sama waa ji. kooku bés bu ma jëlee soccoo courant xarit koku day xaar. ma yow man li eh, est-ce que xam nga li nga xam ne dina ko seetaan. ma ñaan ko ngir yalla mu jël ma nga xol léegi nag bu ko seetaanee damay ragal yow buñ la woon suba ne la avance góor gi étudiant mi ngi nii ngay jéem a lay di jéem a fente di jéem a ut foo jaar ba ba ba mën ba mën a daw ko boobaa boobaa nga xam ne lépp dëgg la avance baa ngi nii avance góor gi étudiant mi ngi nii damay tëju si néeg fecca fecc ba ñaq xam ne ma ne la nga gis nga gis lu yéeme def lan ngay def ma la dama koy defeere déggal déggal waa ji def man xam naa góor gi étudiant. ma ne la kooku. kooku man dama xam góor gi étudiant. ma ne la kooku bës bés bu ñu boolee laa la wax. Ah, nga gis lu rëy. na combat bi taxaw. na taxaw tey tey tey tey tey na taxaw. nga gis lu garaaw. kon nii yow pour yow buñ doone woon combat un mois pare nga. ma ne la parrainage yi la man mën naa laa wax suma porte ubbi naa fépp. ubbi nga say ubbi nga say porte na gaa yi ñëw. na gaa yi ñëw. kese. kon sama gars ñoo ko déggandoo ah. instant bi ñaar séance ngay entraîné par maa ngi trois séances xanaa déggoo la ma la trois séances combat amul dara xewul nga entraîné trois séances pour la man su ma amee combat amatuma ay séance chaque jour saa su ma xel nekk si entraînement damay dem entraînement mais instant bi dara xewul combat amul nga entraîné trois séances loolu mooy